بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همازات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرني الحمد لله الذي بجلاله تم صالحات الحمد لله على كل حال سبحانك لا علم لنا إلا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ساد لساني نير جناني سافي أماني وزد براي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري أهل اللقطة من لساني يقو قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokk dëkkandoo yi ak wëllëre yi ak fu waay mën a nekk ci àddina si ñu seetaan noo ngi dellu siwaat ak yéen suñu émission bi nga xam ne moom lañ tuddee jàmm dooy fii ci Prestige Thiès TV ngeen ànd ak seen xarit seen soppe dégg nga Cheikh Ousseynou Sy naar borom Touba waaye tey Alaaji Ousseynou Sy la ñuy wax waaw noo ngi leen di siyaare di wax ne Makka ak Medinatu Munawara mu ngi leen di siyaare ñaanal nañ ñépp di ñaan eh, ki nga xam ne mooy borom daara ji yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko muy Pape Doumbia mi nga xam ne moo yóbbu woon siyaar di dégg maam ko tedd ki sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñu siyaaree sunu lu am muy sëñ Muntaxa Bachir yal na ko fi yàlla yàggal te wéral ko ak sëñ am mu sëñ Modou Mbend Fall di ko siyaaree dégg nga euh, ki nga xam ne kii mooy sëñ Moussa Fall mu sëñ Mbacke Fall mu sëñ Amdi Khadi Fall maam Cheikh Fall di siyaare sëñ Cheikh Ngunda Fall mu Cheikh Saliou Fall maam Cheikh Ibra Fall lam Babil Mouridina waaye noo ngi siyaare sëñ Cheikh Ndigal Fall mu Cheikh Fall Baay Góor maam Cheikh Ibra Fall lam Babil Mouridina di ko siyaaree itamit dégg nga maam ki nga xam ne moom mooy euh, ma ala waa kër ma alaaj njëgën gépp dégg ma am ki nga xam ne moom moo fi nekk ci xalifa bi alaaj mu nir njëgën noo ngi koy siyaare bu baax di siyaare asbara njëgën waaye di siyaare waa kër Cheikh Abdou Aziz Aydara dégg nga naa ma noo koy siyaare bu baax di siyaare waa njaboot sëñ Saliou Touré gépp bàyyiwuñu kenn dégg nga maam Cheikh Touré mi fi nekk ak ay rakkam ñoom ñëpp ñoo leen di siyaare waaye di siyaare dégg maam waa kër sëñ Mor Ndiaye Daabaay xalifa bi di ñaan yàlla yàggal leen wéral leen na leen bu baax a baax dégg nga di siyaare waa kër Seyib Ndooy gépp nag waaye di siyaare sëñ Abdou Ndiaye di siyaare dégg maam ah, Baay Yoroon Ndooy mi nga xam mooy borom dëkk ba ak Baay Daam Ndooy di siyaare dégg maam ah, mboolem waa waa dëkk ba yëpp bàyyiwuñu dégg maam Oustaz Njëgën di siyaare dégg nga sëñ Bay Si Mansuur ca Tiwaawoon dégg nga ak mboolem mbokki tiijaan yëpp néegu yàlla boobu yàlla na ko yàlla àggale si jàmm ak salaam ak ñi nga xam ne waa laayeen yi borom aaji boo daay laay nga xam ne barki démb rek lañ doon def dégg maam ku gis dégg maam seen yu weex yi ak seen taxawaay xam ne maam jaamu yàlla bu wér dégg maam la ñu def te ba pare sellal ko yàlla na yàlla yàggal xalifa bi dégg maam du siyaare ñëpp bàyyiwuñu kenn ak waa daaka beeg ñëpp di siyaare mboolem ñaseen yi dégg nga di wax ne tey jii nag euh, ñoo ngi doog a ñëw ndax danoo demoon umra ji bay doog a ñëw na danoo ñëw dégg nga ànd ak sunu njaboot dégg nga di waa kër sëñ Moon Njaay Daabaay dégg nga ñu ñaanal sëñ Fallou Njaay Daabaay moom yal yàlla doo leeram ak sëñ Abib mi nga xam moo fi jóge bu yàggul ki fi toog xalifa dégg yàlla na yàlla yàggal wéral ko waaye di siyaare bu baax sëñ Cheikh Njaay Daabaay dégg nga noonu ak sëñ Basiiru bàyyiwuñu kenn si ñoom dégg nga tey jii nag euh, ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp dégg maam di wax ne euh, mboolem jullit yi nga xam ne dégg maam ah ngi ci kaw ñoo ngi ñaan ci yàlla mi nga xam ne dara tëw ko yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci dëkk bi def ko ci kër yi dégg nga mboolem yi nga xam ne moom moo am muy musiba yi ak balaa yi yàlla nañu ko yàlla dàqal ci barke Seydina Muhammad euh, émission bi nag jàmm du doy lañ ko tuddee kon jàmm rek la ñuy ñaan yàlla na yàlla dooli jàmm dégg nga kii nga xam ne kii dégg maam mooy Pape Doumbia di borom prestige dégg maam ñoo ngi koy ñaanal naal bu mu naal yal ko yàlla àggaleel ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi te yàlla sàmm ko di siyaare baayam Seydi Doumbia allah Seydi Doumbia ak allah Adja Fanta Diop dégg ma ak njabootam yëpp suñu tuddee dégg maam euh, njabootam gi bàyyiwuñu kenn kenn ci ñoom dégg nga ñu ñaan yàlla na yàlla guddal seen fan wéral leen su ko defee dégg maam ki nga xam ne moom mooy euh, maam As dégg Euh, Ndiaye Dabaye dégg nga maam tey moom lañu àndal ci émission bi ak si euh, si Cissé Ndiaye Dabaye dégg nga nga xam ne moom it day tagg yoon bi sallallahu alayhi kon xam naa ne incha allah dañuy daal di euh, dugg ci li nga xam ne mooy mu ubbeel rek tagg yoon bi sallallahu ah, ci ay nu nayn doonte ay béyt la su ko defee dégg maam nu doog a dugg ci liggéey bi kon bisimilah tafaddal mashkur antaano nuraabe wasiira njaay duraabe waraaso luraabe akramun bujila لكاها نزالا مالك جمالا خير ما نزيلا مصافا رديلا إقدادين وهذا فجازا كان ففوق المنى نريد كوسنا ربي سا جزا الله ربي سل Ahmad Njaay wasala min waa ben wa axlaa rabbi sal wa akhla adi cheikh mon jaara tabarakallah a dégg ngeen sëñ Cissé dégg maam Njaay daabaay ah wax dëgg yàlla kàddu gi neex na lool waaye ki wax wax ji dégg moom kenn du moom waaw sëñ mon Njaay daabaay loolu mooy ay nañ dégg nga su ko defee rek ñoo ngi ñaan suñu borom mi nga xam dara teew ko yàlla nañu defal ci réew mi ci um, barke mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon jaar fi jaamu yàlla liggéeyal Seydina Muhammad salaa sallam ba jiitu dégg nga bàyyi na fi dégg nga loolu dégg nga yàlla nañu ci sa yàlla saxal ñu tamit dégg nga ci barke Seydina Muhammad salaa sallam su ko defee rek dañuy ñëw dégg nga maam ci maam as su ko defee dégg nga maam moom it mu nuyoo kon sëñ maam as bisimilah tafaddal mashkur aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim hmm. alhamdulilahi rabbil wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin seydina muhammadin rasidi mursid wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi isa ila yawmi din asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu aleykum salaam wa rahmatullahi Cheikh Ousseynou Sy ñu ngi lay nuyu di la siyaar itam di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi suñuy kilifa di siyaar Sëriñ Muntaxa Mbakke ñaan yàlla yàggal ko fi amiin te te wéral ko amiin ñaan yàlla lépp loo xam ni it eh, yéene na ko ci liggéey ko ku tedd ki si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul suñu borom kàttanal ko ci ba mu mën a matal lépp te fekk lépp itam barke borom Tuubaa ni noonu it lay nuyoo xalifab Cheikh Mor Ndiaye Daabay radiyallahu anhu mm-hmm. eh, sëriñ Abdou Khadir Ndiaye mm-hmm. di ko siyaar itam bu baax a baax a baax eh, di ko ñaanal li ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha rek moom yàlla yàggal ko fi lool ci kanam njaboot yi yàlla kàttanal ko wéral ko ba yéene ji mu am ci liggéeyal ko Cheikh Madior daa bari hmm. suñu borom kàttanal ko ba matal lépp te motali ko te fekk lépp itam ànd ko njaboot Cheikh Madior daa bari gi yépp noonu it la ñuy siyaaree mboolem kilifa diine yi yoo xam ne ñu ngi dëkk bi Thiès ak li dëkk bi di ñaanal yàlla euh, gudd fan ak wér ba naa am ci ci ci yéene ci diine ji hmm. suñu borom kàttanal leen ba nu mën koo motali bu baax a baax na di nuyu mboolem sëti Cheikh Madior daa bari yépp itam di euh, euh, jiital Serigne Cheikh Ndiaye mi nga xam ni hmm. moo ne ci kanamu njabootu suñ fàllu gi waaw ah, di ko di ko ziyaar itam bu baax a baax di ah, ñaan yàlla kàttanal ko moom it ba yéene ci liggéey sëriñ fàllu ak liggéey si amañu dafa suñu borom dimbali ko ba saa su nekk mu koy man ci ci ñu kawe njottam rek ah, di ki ñu fi yebal itam mm-hmm. di suñu kilifa di suñu sëriñ di suñu xaar lépp di sëriñ Abdou Diop Ndiaye mm-hmm. fàllu ah xam ni moom moom moom fi ci ndigalam leen fi ñëwee wallaay dëgg la ah, di ñaan yàlla itam ñu ko ñaale kilifa yi rek ñaale ko noonu yàlla kàttanal ko amiin ah, te te taxawu ko ba yéene gi mu am ci liggéeyal ko Cheikh Madiagne Dabaye hmm. waaye liggéeyal ko diine liggéeyal ko islam liggéeyal ko bàyyam tëdd ba sëriñ Fallou itam hmm. suñu borom kàttanal ko ba saa su nekk mu di ko mënee nu kawe njortam yu nuyu mboolem waa kër gi nga xam ne tamit ñëw leen fi waaw ah, di leen siyaar itam di jégalu bu baax a baax rek noonu daal moo nekkoon suñu nuyu bu baax alhamdulilah. barkalla jërëjëf euh, balaxtoo ak malt waaw ndax dañoo wax ne xayri kalaam maa qalla wa dalla waaw kaddu gi dégg maa gàtt na waaye tegtalu na dégg nga ki nga xam ne kii mooy Abdou Diop Ndiaye di mu sëñ Fallou Ndiaye daabaay mu baax moomu nga xam ne moo dëkk kër Seyib dégg samp fa daara alxuraan waaye tabax juma boo xam ne bii ñoo nga cay liggéey ba àggut mook daara ji yépp dégg nga ñuy ñaan yàlla na ko yàlla àggale dégg nga waaye mu am bis boo xam ne bi dégg maam moom lay taxawal bis boobu dégg maam incha allah le 17 la waaye bis boobu lan lan lañ ci waaj ñu ko waajee. waaw euh, sëñ si si lu ñu ngi lay ziara bu baax a baax. Mm-hmm. Euh, ndax ku xam daabaay moom xam ni buñ ne daabaay la sa day dem ci diini. waaw dëgg la kon nag euh, képp koo xamante ni ko askanoo ci Cheikh Moundiaye daabaay nga. Mm-hmm. lépp lu la dégg nga di ko woote rek. Mm-hmm. bu bu bu doonul diine dina dina dina jaaxal ña koy dégg. dëgg la wala boog xam ne xanaa kon kooku bokk fa kon. waaye képp koo dégg ñu koy tudd ti ci teg daabaay rek. boo mm. déggee wooteem boo ko toppee ba ci bii diine lay doon. dëgg la ba bu génnee diine rek kon keneen kon kon leneen keneen kooku keneen la waaye du ko bokk daabaay. dëgg la dëgg la parce bis bi muy woote yi bisu diine la. Mm-hmm. ndax bis la boo xam ni mm-hmm. euh, daf ji fàttaliku nitu yàlla. Mm-hmm. muy waajuram di Cheikh Mouhamadou Fadilou Ndiaye daabaay. est-ce que. Ah, nekkoon ki njëkk a wutu Cheikh Mor Ndiaye Dabaye ci kaw hmm. suuf. dëgg la ah, kooku mooy waajuru suñu Sëñ Abdou moom la ci Sëñ di fàttaliku. waaw ah, bis boobu itam eh, sëñ bi daan na ko def. Hmm. ci ci ci dundu sëriñ bi. Hmm. xam nga sëriñ bee ko joxoon ndigal. bi muy dund. waaw mu mu ko ci daan cant cant di ko ci ñaanal itam. waaw. ginnaaw bi sëñ bi jugee it mu continué ko itam. dëgg la waaw ah, muy bis boo xam bisu diine la nga xam ne buñ ci yeggee incha allahu rabbi hmm. ah, li li li li yaakaaru ci diine lépp dafay am. incha allah koy ibbee alquran. waaw dañuy jàng alquran. waaw xëy jàng ndax nii sax nii sax tàmbali na. waaw ndax loolu moom waaw kaamil yi moom ak ñaani tàmbali na. waaw sëriñ bi ba mu ko jàppee ba léegi. waaw mi ngi bëgg a def ab diir te boobu ba léegi sa bu xëy rek euh, lépp loo xam xamante ni lu jëm ci wàllu yooyu la mi ngi ci. waaw. waaw xam ne bisu diine la daal bis boo xam ne jàng alxuraan lay doon. Mhm. waaye defar ay ay ay ay ay ay xéewal. waaw jox jullit ñi jox jullit ñi. dëgg la bisu jàng xasida lay doon itam. Mhm. waaw bisu jàng aynu naxim bu Cheikh Mawne Dia daal bii la. Mhm. waaye bisu waxtaanee fa nit yàlla bii la itam. waaw dëgg la kon su ko defee rek bis boobu itamit dégg maam dañ koy xëyee yendoo ko waaye dañ koy fanaanoo. waaw nañ ko ne tamit noonu mm-hmm. ndax ci guddi gi tamit dañuy jàng di mu ay xasaayit mm-hmm. ñu ci def ay waxtaan ay nañ dañ ko ci jàng mm-hmm. kon bis boobu kon ñoo ngi ci woo jullit yépp comme ni mu ko waxee boo mboolem jullit yi dégg maam mu ngi leen ci woo te loolu kër Sayib Ndoye la dégg maam képp koo xam ne kii rek dégg nga yaa nga ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna mu ngi lay woo dégg maam ci bis ba rawatina nag dégg maam mi nga xam ne ñooy waa kër Sayib Ndoye yéen yéen dalal gan yi de bis bi seen bis la dégg nga ah ni ñu ko bokkee ñun ñëpp waaye dégg nga maam su ko defee gan yi ñëw yëpp ñu dalal leen taxawu leen ubbi buntu kër yi defar lépp dégg nga kon bis boobu dégg nga maam le 17 lay doon dégg nga ci février bi yàlla nu yàlla may dégg maam lu fekkee ko te ku xam sëñ Abdou dégg maam xam ne dégg maam ci yàlla xam ne tamit liggéey na fa liggéey bu am solo ndax dégg maam li mu yor mooy daara dégg maam moom la taxawal taxawal dégg maam juma. dégg fas yéene dégg maam di tarbiye dongo yi di leen jàngal alxuraan di leen jàngal xam-xam teg leen ci yoon kon su ko defee bis boobu dégg maam ñoo ci woo ñëpp bàyyiwuñu kenn nag dégg maam ah ñun ñëpp ñoo ci jiitu incha allah dégg ma ko su ko defee rek ñu xam ne tamit dégg nga danoo toll ci euh, weeru bu tedd weer bu barkeel muy weeru rajab waaw weer wii nag yàlla moo wax ne weer wi sama weer la man maa ciy fay kon nañu lu waaye mën ci jaamu yàlla na ko ci def te góor góor te xam ne koor gaa ngi ñëw dégg nga incha allah koor gi eh, ñépp xam nañ ne nu nag ñoom ci fulku bi masuun bi incha allah def naa ne bu weer bi dee xam naa ci fukki fan yi ak benn mbaa ci yooyu lay war a tolloon dégg nga su ko defee dégg maa nu waajal koor gi dégg nga te xam ne eh, wax dëgg yàlla kasu rajab bi nga xam ne moom la ñu jàll muy bis bu sëñ fàll muy ilimaan ci ndaam taf ci tigga de àllaaj tuubaa foo tukki Màkka foo ñibbi Tuubaa kuy sa baay Bàmba kuy sa maam Muhammadu Rasulullaahi kooku mooy borom na am mu am du am du am soo bëggee mu am rek taaf ci barke mu am moom lañ tuddee sëñ Fallou Ndiaye daabaay mi nga xam ne nii dégg maam ba mu toogee ci xalifa baayam dégg maam sëñ Abdoulaye Mbàkke ñëw na fa fekk ko fa dégg nga muy koo xam ne ki ku jàmbaare kon doomam dégg maam mooy woote bis bi su ko defee ñun ñëpp dégg maam nañ ci nañ nañ taxaw dégg kon fii laay dikkee yi tamit dégg maam jox ki nga xam ne ki dégg mooy si si Njaay mi dégg maam daa baay euh, mu indi laat nu dégg ay béyit nu doog a duggaat dégg maam ci waxtaan bisimilah tafaddal urzuq lana hubba Bamba na ma wax laajal ma seexi eh, <laughs> ah, ma samba waaw waaye parce ma wax laajal ma seexi ma samba njaay sang بكلمهم شيخي من جل برم لها باي جاي باي فلو الله أكبر أخمد من له الأمور كم البرايا بسجون الله لمز الخيار لمن إليه ينتمي شيء شيخي مر جاي بابا باي سيري فلو ياي مامي سيري عبدو جوب ياي نينا امدو مالول مولا كمان بن بنسوكو الله نمز الخيار لمن اليه ينتمي فإنه بزرزال خديم دونك سول لا إله إلا الله بجاهلين الأصول لمن ألا أن نرسمي Cheikh Mor Ndiaye daa bay ba yu sin Fallu Ndiaye maam yi maam as Ndiaye nee na. Sëriñ Fallu Ndiaye daa bay nee na. ci Abdoulaye da soxna may ku nekk ñëw seede lu rëy na ni yow yaa lay may seexi Fallu Njaay ca kanam daa bañ da yéen sant leenoo xam naa ni yéen yéen gañe ngeen yàlla may na leen mayin gu rëy ca kanam Seexi Fallu Njaay mooy bàyyu Sëriñ Abdu Joof Njaay daa baay bàyyu Sëriñ Seex Njaay daa baay bàyyu Maam As Njaay daa baay Seexi Fallu Njaay daa baay Sëriñ Saali mu ni woon kon na Sëriñ Fallu Njaay daa baay ca kaw ca Seexi Saaliw wooy yàggaanu bay Useynu si naaru borom Tuuba moo ni woon sëñ Fallou Ndiaye ku ànd ak yow ca kaw ca a kanam Ndiaye sang Ndiaye dañuy tëju di la jooy Ndiaye yuuxu nan ba far xalambaay njanaawi sax ñoo ngi jooy sëñ Fallou Ndiaye ca dëggi ko juddi la jooy njaay sango njaay yuuxu nan ba farxala maayeñ jamaa wi sax ñoo ngi jooy sëñ njaay ca kanam sëriñ as njaay ca daa bay nee na ja seexi moon njaay daa bay na bis moom dong amee di jàng ay nuna yim teerem ba mu ndab looleen ngi dal rasulalaayi may soppem ba sallallahu alayhi wa sallam sirri ma mas lay daabaay neena maamam du tëdd jooje Cheikh Mor Njaay daabaay am na bis dongam ne di jàng ay nu nayim teere mu noppi looleen gi dala rasulallaahi mooy soppem ba sallallahu alayhi wa moo di borom Tuubaa borom Tuubaa moo di Seex Imoor Njaay daa baay waaye ñoom ñaar ñooñe ñoo di Muhammadu Rasulullah Seex Imoor Njaay moo di borom Tuubaa borom Tuubaa moo di borom daa baay waaye ñoom ñaar ñooñe ñoo di muhammadu rasulullah subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin tabaarakallah kenn ku ne de ma xol yépp sedd na mm-hmm. li ngay jàng tabaarakallah yàlla na yàlla gën a dëgëral baat bi neex na tubaarkala yàlla na gën a neex yàlla na nga mel ni làmp làmpaal ci jànkat yi barke Sëñ Moon Njaay daa bàyyi waaw kon su ko defee rek dégg nga ñoo ngi sant bu baax a baax dégg maam mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu seetaan suñu soppe yi ak suñu kóllëre yi ak fu nu mën a nekk rek ñi nekk Amérique dégg maam Ibrahima Dramé ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax dégg maam ndax ba may nekk Makka dégg nga ak mu Medinatu Munawara ñëpp maa ngi jokkook ñoom ak dégg nga ñi nga xam ne mooy ñoo nekk Espagne dégg ak Jibi Ba bi nga xam ne moo nekk dégg nga fële ci Italie ñoom ñëpp dégg nga bàyyiwuñu kenn dégg ñu maa ngi doon jokkoo ñoom waaye dégg nga poroxaan nga xam ne wax dëgg yàlla dégg ah góor yàlla yëpp dégg dem nañu ndax waa daayira mooy bu naa dégg nga maa ngi leen di sant ñoom ñëpp di ko jiital sëñ Njaga Teggin. dégg maam ak ñoom alaaji mun ñang dégg nga bàyyi wunu Ousseynou Ndiaye bàyyi wunu dégg maam Fàllu Ngom bàyyi wunu kenn ci ñoom ba ci dégg maam ta alaaji taala pen dégg nga ak suñu Fàllu Ndiaye mu mag mi ñoom ñëpp noo ngi leen di siyaare bu baax a baax di wax ne dégg nga kii nga xam ne moom mooy euh, sëñ Ngoore Fay dégg maam di suñu xarit di suñu soppee am bisam boo xam ne bii tamit le 17 la dégg maam mu koy def ca fayu at mune ne dégg ma dañ ci daan woo sëñ Cheikh Mbacke dégg nga day jóge dégg nga Daaru Xuddoos ñëw fa te bis ba man mi maay def waxtaan wa dégg nga ñoo ngi ci sëñ Ngoole Fay moo ci woo soldaaru Sëriñ Tuubaa yépp dégg nga xaritam yi nga xam ñoo daan ñëw ñoo ak kenn si ñoom dégg nga bis bi le 17 la incha allah bu ñu añee rek la ñuy tàmbali dégg ba heure bu mu yem dégg nga loolu ca fayu lay doon kon su ko defee yàlla na nu yàlla may nu fekke ko dégg nga wax dëgg yàlla eh, sëñ Ngoore tamit nekk nit ku baax waaye di leen wax ne rek ci màkkatul mukarrama ak medinatu munawara dégg nga képp ku fa dem billaahi dégg nga yàlla bu mu ump benn jullit yàlla bu mu ump benn jullit dégg nga maam ndax ku fa dem xam na ñu baax ñi rek ñoom ñoo baax nga xam ne rasulullaay kenn moom boo demee dégg maam ah jabalu Uhud soo demee dégg foofu la dégg ñoo am sa dégg maam foofu la ñu tëdd dégg maam armeel yi doo xam dégg maam doo xamee kenn waaye baqee soo fa demee dégg imaam Malik fa la tëdd waaye damaa wax ni ci biir jumaa ji waxtu wu ñu jullee rek dégg farata noo ngi jullee néew bu ñu jullee suba bu noppee rek salaatu alalu am waati yarhamukumullah ñu julee néew bu ñu julee tisbaar noonu bu ñu julee takkusaan noonu bu ñu julee gee noonu te bu ñu ci pare nun néew yu mën a toll suñu paree dañuy dem suul leen te foofa soo demee moo bàqee fii de maam benn la ndax armeel ya kenn dégg amul dara dara benn armeel tabaxuñ ko lépp dégg maam xeer ci kanam xeer ci ginnaaw dañuy jàll suuf si dégg noonu la lépp demee soo demee dégg maam xam la teen masjid xam la teen nga dem dégg maam xubaa dégg nga xam ne juma jàkka yooyu dégg maam bi nga xam ne masjid xubaa nag moom mooy bi nga xam ne bii moom la laa jëkk a def ci kaw suuf néegub yàlla te keroog bu ñu ko ànd ak Abubakar Siddiq bu ci nekk booy boo demee boo koy nuyoo dégg xul yàlla kaafiruna dégg faatiha xul yàlla kaafiruna faatiha xul allahu ahad dégg na boo jàng ko laal kaafiruuna moom génn nga ci kéeféer moom xol laa waxaat dégg ma mooy bàkku yàlla moom yaa ngi <laughs> waaw kon yàlla na yàlla defal jàmm dem nañu foofu yëpp dem nañu kul ziyaar dem nañu def nañu tawaaf def nañu lépp waaye di leen wax ne dégg maam agence bi nga xam ne moo tudd ko voyage nga xam ne Cheikh Xile Dieye moom moo ko yore muy magu ab Ablaye Dieye mi ngeen di dégg dégg maam Cheikh Xile Dieye ku baax ku ànd ak moom dégg nga ci Socotrans voyage dama leen wax ne billahi wallahi doo sonn ndax hôtel yi mu lay wutal dégg nga mook jumaa ji benn lay doon soo demee màkk tamit dégg nga mook dégg nga soo wàccee rek yaa ngi dem jaar fi muy yaa ngi ci kaaba gi dégg nga te condition yu normal dégg maam ci lay ànd lépp dégg maam nit ñi kon maa ngi digal képp koo xam ne ki bëgg nga dem dégg nga maam aji màkka soo nu ko waxee dégg nga maam incha allah sunu numéro 77 420 24 48 77 420 24 48 dañ la boole xile jéey dégg nga xile jéey moomu dégg nga am ñuy war a dem màkk dégg nga ñoo ngi ci wàccaay yi fi mu ne dégg nga ku bëgg a dem umra yi tamit dégg nga am noonu dégg nga kon ñu ngi ñaan euh, ki nga xam ne kii dégg nga moo nu booleeg moom muy Pape Doumbouya dégg nga ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla gën a yokk wéram ak kattanam waaye di wax ne noo ngi siyaare bu baax dégg nga maa waa Thierno Alassane Diallo ci Jaxaaw nga xam ne dégg maam ki nga xam ne moom mooy Thierno Baba gàlle dégg nga muy xalifa ba ak Ablaye Diallo ak mboolem ay rakkam yépp dégg nga seen seen baay mooy sama xarit ñu jàpp ma def ma muy may seen baay dégg nga le premier maam bii di ñëw ci weer wi dégg moom la ñuy def dégg nga siyaar boobu ñuy ñaan seen baay dégg foofu ci kër Thierno Alsane Diallo ñu ci woo ñëpp bàyyiwuñu kenn nag dégg nga rawatina dégg nga imaam si euh, Ahmed Tidiane Aw ak mboolem dégg ak Chérif dégg maam Euh, ay nii bi nga xam ne moo nekk ci Tivaouane ñoom ñëpp dégg maam bis ba daal suñu bis la dañuy xëy rek bu ñu jullee tisbaar ba pare dégg nga ci la ñuy jël dégg nga jàng kaamil alxuraan yi daal di fay def dégg nga bu bu bu 6 euh, heures jotee dégg maam ci la ñuy def xadara jumaa ak yooyu yëpp dégg nga bu nu paree ñaan. kon noo ñaanal ñëpp dégg maam yàlla na nu yàlla may fekkee ak tal dégg nga di sant mboolem mbokk yi ak xarit yi nga xam ne rek suñu soppee lañu ak fu waay mën a nekk rek dégg nga te yéene woon nañ ñu ñoom ñëpp dégg maam ñu dem siyaar ji rasulullaay waaye man yéene naa leen yéen ñëpp yàlla na ngeen dem siyaar ji rasulullaay salaa salaam dégg nga kon su ko defee rek damay dellu siwaat ci ki nga xam ne ki dégg maam moom mooy dégg nga sëñ euh, maam Ndiaye Daabaay mi dégg mu wax nu tuuti dégg sëñ Mor Ndiaye Daabaay dégg bisimilah tafaddal mashkur. jërëjëf Serigne Cheikh waaw ndax waxtu wi daanaka mu ngi nuyoo. waaw moom dafa mel ni Cissé ni tënkee njàngam gi rek. waaw moom <laughs> déglu rek da ngay da xam mbiram. waaw. waaw ndax sëñ bi daal aynu nañ moom lan la ci wax. waaw aynu nañ xam nga sànq am na xas dëgg bu njëkk a sax nga ni aynu nañ waaye boobu aynu nañ. waaw waaw. boobu alhamdulilahi jàlla abdoulaye jàlla waa kay boobu ay ci ci xasidaay xasidaa mi la la bokk ci xasidaay la bokk waaw euh, ay naam dafa gën a siiw waaye lim bind ci ay xasi xasida kenn bari bari na lool parce que bari na lool alhamdulilahi jàlla ah. boobu day ma wax na ci ay bayit rek day ma sant jàlla moom moom de xasida goo xam da ciy sant su borom mhm. waaye di di di ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci di ci di ci di ci Euh, xamle tolluwaayam tamit ci yonent bi. sallallahu alayhi ndax xubbu ahmaduna xalbanaa sukkinaa. Mm-hmm. mi ngi ciy waxee si mu ni bëgg bëgg gi mu bëgg yonent bi moom ci la xolom dalee. waaw nga xam ni kon kon. Euh, aynu nahim lu lu lu lu lu yéeme la. dëgg la waaw mm, moom moom te te te boo demee ci aynu nahim mm-hmm. Euh, lépp ay salaatu la waaye waaye waaye yeneen xasida bi tam lépp ay salaatu la. ay salaatu la waaw nga xam ne bu weesoo comme léegi bi si si tudd nga xam ne da ko def ci Amadou Bamba Xaadim Rasul. Mhm. nga xam ne bi ñuy wax abyaat boobu naan ursuqo nax boobu Bamba yaa ngi naa na ko ñun yàlla ñun yàlla na ko yàlla defal ñun ñëpp. amiin yaa rabbal <laughs> waaw moom nga xam ne sama yaadawaay ak ci ci ci biir njàngum système yi yaa ngi ciy déggaat euh, ndeysaan muy muy muy muy wax ni Cheikh Mor moo di moo di moo di Sëñ Tuubaa. Sëñ Tuubaa moo di moo di Cheikh Mor waaye ñoom ñëpp ñooy Muhammadu Rasulullahi rek nga xam Cheikh Mor Diarra dundam gi noonu la diggante ak dundam génnul génnul génnul génnul yonent bi ak Cheikh Ahmadou Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ndax bi mu jógee euh, bëgg àgg ci yonent bi Sëriñ Tuubaa ko ca moo ko ca yëgale nga xam ne Sëriñ Tuubaa kon kenn xamul lu lu lu mu doon waaw sama njada way radiyallahu nag moom moom moom moom xëy na ni temps bi demee waxtaanee ko dina xaw dina xaw a gàtt ndax dina laaj ab ab ab départ tuuti te te boobaa damay ragal mu gën a mu gën a jël temps bi lool. dëgg la jërëjëf waaw incha allah jërëjëf kon su ko defee rek incha allah mm-hmm. euh, sëñ bi moom moom li mu wax rek. maanaam loolu dara. waaw yàlla bu ñu wërsëgalee dégg nga bëgg Cheikh Ahmadou Bamba rek doy na sax mm-hmm. ndax alxubbi shiri kul mm-hmm. waaw bëgg sëñ Bamba rek doy na jaamu yàlla waaw te loolu dégg maam kon su ko defee dégg maam ñi nga xam ne ñoom samay seexu dégg maam màkk ñi ma ànd loon dégg maam maa ngi leen di siyaare ñoom ñëpp dégg nga Euh, ki nga xam ne ki di maam mooy xile euh, jeey moom laay wax na di maam maa ngi koy siyaare bu baax di ko ñaanal borom Socotram voyage dégg nga waaye maa ngi siyaare bu baax dégg nga galgu euh, mbeng alaaji galgu mbeng maa ngi koy siyaare bu baax ku baax dégg maam moom tamit waaye kii nga xam ne ko mooy alaaji monsieur Baar Mbaay mbay dégg maam dëkk ca Ndar moom tamit nekk nit ku baax dégg maam koo xam ne kii jàmbaar la lool maa ngi koy siyaar di siyaare njabootam yépp dégg maam bàyyiwuma kenn ci ñoom na nag dégg maam suñu yaay Adama Sarr dégg maam di yaayu grand sëriñ moom it dégg maam ndax demoon dégg nga ak soxna si nga xam ne si moom la ñu àndaloon ñoom ñëpp dégg nga noo ngi leen di siyaare bàyyiwuñu kenn dégg maam di wax ne yàlla yoon wi yàlla bu mu doon suñu mujjanteelu yoon dégg nga ci barke Seydina Muhammad salaa salaam waaye dañuy dikkaat rek dégg maam ah, ci ki nga xam ne kii mooy ah, sunu eh, mooy Cissé Ndiaye Daabay dégg nga nga bégalaat ñu rek dégg maam ci xas yi doon bala ñoo tëj dégg maam daanaka ñu ci cëppaandaw ji kon su ko defee rek dégg nga ana loonu idil iwalu njaay moo ma jaral utabala di ko jiin borom daa bàyyi njaay dégguma la de waxaatal loolu nga ne lan <laughs> sëñ Fallou Njaay moo ma jaral ku tabala di ko jiin borom ay nu nayim Njaay sa la dëgg la est-ce la ilaha illallah sëñ Fallou Njaay borom daaba Njaay moo ma jaral ku tabala di ko jiin jiin jiin jiin ne borom ay nu nayim Njaay sëñ Fallou Njaay daa baay dem na ji naana ànd sëriñ bu mag ba sañ ji naana sëriñ Mor Njaay daa baay mooy baaya moo sëriñ Fallou Njaay daa na wax moome man ne bu ma ñëwoon fekk sama baay topp Sëriñ Tuuba dinaa ko jox woon ma baay waaye dinaa topp Sëriñ Tuuba kon de nga xam ni Seex Fallu Njaaye moo bëgg Sëriñ Tuuba dëgg la moo taxoon Seex Abdulaay def soxna may ku nekk ñëw seet lu rëy Njaaye xam na ni yow yaari may sëñ Fallou Ndiaye ca baru la lay dëgg la yow yaay mi fi génne sëñ Fallou addinaay addinaay addina yàlla ko may ay këri kër fa aljanna yàlla mi dindi sëñ Fallou Njaay bay sëriñ Abdou Diop Njaay borom leer yaa ngoogu kooku Seex Fallu Njaay daa baay mooy baaye moo Sëñ Fallu Njaay moo baay Sëriñ Seex Njaay daa waay mooy baay Sëriñ Daam Njaay baayu Seex Ibrahima Njaay baayu Maam As Njaay caatu Sëñ Fallu Njaay kamaalu daa baay yow de bu la neexee doon kamaalu daabaay ndax sëñ Fallou Ndiaye sa alaaji moo du liggéey maam raas moom la la duppee saa baateek dema maama rek ñay baayu sëriñ mu niroo borom ñaari xilaafa ñun de ñu ngi ñaane ci hmm. barke Seexi Fallu Njaay yàlla yàlla dolli nu jàmme dolli ñu wéree defal ñu tawfeex ci hmm. barke Muhammadu Rasulullaay allahumma salli ala sayyidina muhammadin اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد kon ñu delluwaat julli ci sayduna muhammad nda seexi mor njaay daa booy lu mu am rasulullahi moo ko ko jox sëriñ tuba lu mu am rasulullahi moo ko ko jox waaye seexi fallu njaay daa rasul laay moo ko jox kon dañuy jëlaat muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf waaw jërëjëf kon su ko rek ah dégg ngeen sama soppe bi, man de sopp naa la ngir jëmmi sëñ Fallou Ndiaye daa bàyyi ndax wax dëgg yàlla li ngay jàng neex na na la waaw ñoo ngi lay bu baax. di wax ne le set nag mooy bisu sëñ Fallou sëñ sëñ euh, Abdou euh, Diop Ndiaye. daa bàyyi dégg maam le 17 la ci kër Sëñ Ndoye kon ñoo ngi ciy wax ñëpp dégg ñoo ngi leen di woo. waaye le 17 dégg maam moom la Ngoore Fay di woote dégg maam fële nga xam ne moom mooy fayu moom tamit bis boobu ànd ko soldat Sëñ Touba yi dégg nga le premier itamit dégg maam mooy bis bi nga xam ne bii mooy bis Thierno Alassane Diallo bi ñu koy defal dégg maam ca Jaxaaw. kon su ko defee bis yooyu yëpp suñu bis la incha allah su ko defee maa ngi nuyu waa prestige képp nag di nga Khalifa Fall noo ngi lay ñaalal naa leen yéen ñëpp nag bàyyiwuma kenn nag Khalifa Fall ñoo ngi koy siyaare dégg nga ak Modou Guèye waaye ñoo ngi siyaare Mbaye Ciss dégg nga ak waa école ba ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn nag waaye restauration suñu doon ñu fi nekk ñoo leen di siyaare ñoom ñëpp ñu fa nekk dégg waaye di siyaare garderie d'enfants bi ñoom tépp tamit ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax waaye di siyaare dégg nga waa isinu ndox mi dégg ñoom tamit o dégg maam Thiali ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax waaye di siyaare bu baax a baax dégg maam ki nga xam ne kii mooy sàtte na njoon suñu jarbaat di siyaare sëñ Modou Aïssa di siyaare ki nga xam ne mooy Alaaji Seen dégg nga ak mboolem dégg maam ñi nga xam ne ñoom la nekkal waaye ñoo ngi siyaare ak Kim Sarr dégg nga ak ki nga xam ne kii mooy dégg nga mu Njaay Jóob dégg nga ba ma nekkee ci màkka dégg maam wallaahi dégg nga mu ngi jël di wane samay image dégg ma di ko kii mu Njaay Jóob moom seen Njaay seen Njaay borom la treize dégg maam kon yàlla nañ ko yàlla may ñu fekk ko ci jàmm ak salaam su ko defee noonu laay siyaare dégg maam booleem waa prestige gépp nag bàyyiwuma kenn muy góor di jigéen di mag di ndaw dégg maam ñépp maa ngi leen di ñaanal yàlla ngeen yokk waaye di siyaare dégg maam soxnay Pape yaa dégg maam Koumbatine mi nga xam ne mooy aawo dégg maam waaye ak soxna Faama dégg maam di siyaare bu baax a baax ki nga xam ne ki dégg mooy Bouchra di leen ñaanal ñoom yàlla yàlla defal jàmm dégg nga Pape li nga xam ne dégg maam moom la bëgg ci xolam bi yàlla na ko yàlla ñu di ba mu dikk ci loxoom yi ba lu ci bëgg séddale bu séddale ko su ko defee dégg maam xam naa ne ah, sëñ ah, maam ah, da ngay def sa kàddu bu mujj rek tàggoo bu dul tàggoo su ko defee dégg maam joxaat kii dégg maam su ko defee ndax waxtu wi daa jot na bismillah dëgg la sëñ sëñ Cheikh xam naa Euh, amoon nañu yéene mu gën a mu gën a yaatu. sax waaye yëf yi moo moo moo ko xaw a xat temps bi moo xat rek. Ah, ñu ngi lay sant nag bu baax nag. ci ci ci yaatal gi. wallaay. Euh, ndax euh, gis nañ taxawaay bi ak ak ak yi ni mel. dëgg la ah, sëriñ biit bi ñëw mi ngi fàttali ni bis bii waaw da ko dara jaalee sëriñ Xasan Kan Nasru wax kay sëriñ Xasan Kan waaw loolu na leer waaw ak kan ndax xam na ni ni sëriñ Xasan Kan meloon ak sëriñ Fallu waaw nga xam ne nii daanaka lu jiitu jumaam yooyu de noppi waaw waxtu ajuma yëpp bu Cees eh, bu nekk bu nekkee Cees daabaay googu la ko daan jullisee est-ce que amoon ak jaxasoo ak sëriñ bi loolu itam waaw ah tekkee it suñu bàyyi sëriñ Cheikh Kan nga xamante ni njabootu daabaay gi ñu ci bari moom moo leen jàngal alxuraan dëgg la yoroon daara ji ci kër ga sëriñ bi di ko ci fàttali ko ci bis ci ñaan insha allah rabbi ak Serigne Malick Diop. waaw kër Cheikh di rakk Baye Cheikh Diop mi nga xam ne mooy sefre kàcce ba dëgg la xam ne ni Serigne Abdou euh, seen Baye Baye Abdou Diop waaw moom lañ tuddee Serigne Abdou mii Serigne bi di ci fàttali ko Serigne Malick Diop moomu waaw ah, di ko ci ñaanal ak bàjjenam bu baax boo xamante nii mm. euh, doomu Cheikh Ndiaye Dabaye di soxna Salimata Ndiaye dëgg la mu leen ci fàttali ko itam kon nag sëñ bi ñooñu la darajaale bis bi waaw di ci woo mboo mboolem ku mbokkal islam gi rek waaw ah, di ci di ci di ci di ci di ci sàkku seen teewaay ak seen ñaan itam waaw ah, ñu di ko sant bu baax a baax ndax suñu kilifa la sunu mag la dëgg la waaye ku ku ku ku yaatal ci ci ci njaboot suñu fàllu gi yëpp la. dëgg la ku ci nekk rek suñu Abdou amlante na ak yow bu baax a baax ci rafetal. amlante ko njaboot sama yaram la kon nag euh, ñi ngi ñu ñaan yàlla bisam boobu nga xamante nii moom lañu dënmal. Mm-hmm. suñu borom àggal ñu ci ak jàmm. amiin ci bëgg lépp suñu borom dafa ah, nga xam ne moom lañu àndal bi ni ñëw. nga xamante ni moom njaboot la ci kër ga. waaye yàlla def ko it mu am fa taxawaay ndax. nii nga xamante nii jële ko yàlla euh, wërsëgale mu ci yëngu muy tagg yonente bi waaw mm. ah, da ci da ci da ci da feeñal mbiru Cheikh Madia Dabaye lu bare bari ci di ko eh, yooyu da foo ne Cissé nga ne sa xel dem Dabaye ndax moom bañ ne ko ba boo ko danaa la Cissé Ndiaye Dabaye nga ni suñu waayu suñu bàjjen ba nekk ca kër ga maam la ci moom di soxna Ndeye Ndiaye waaw ah, nga xam ne nag moom fa la yaroo fa la defee lépp itam di ko nangu nag wax dëgg yàlla ndax ku ko soxla ci njaboot sëriñ bi rek foo ko fekk moom yaa yaa yaa yaa ko moom taalibe gi fa doon doon fa njaboot it du ko nangu na ko bu baax a baax di ko ñaan yàlla àggale ndawam su borom taxawu ko jàppale ko bu baax a baax ba doon benn benn ndog rek jërëjëf sëñ Cheikh jërëjëf euh, jërëjëf Ndiaye jërëjëf su ko defee dégg nga sëñ Abdou Ndiaye mu ngi ci euh, mu ngi koy yëgalaale ki nga xam ne kii daa dañoo bokk mu Cheikh Abdoulaye Dieye mm. dégg nga moom daa bokk ca kër ga waaw di ko yëgal bis bi bu baax a baax dégg nga nga xam ne euh, dégg nga euh, at mu ne daana si ñëw waaye mu ngi koy gën a yëgalaat ren nag dégg ak mboolem ku mu àndal dégg ma su ko defee mm. euh, ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye dañoo bëggoon rek yow tamit nga wax sa kàddu bu mujj rek su ko defee mm. daal di waaw di siyaarawaat rek sëñ Abdou Diom Ndiaye daabaa mi nga waaw moom moo war a jotaay bi ñu ñëw fi tey mm. di ko ñaanal tamit bis bi nga xam ne sumb na ko suñu borom dafa ko ci jàmm dafa ko ci tawféex. ak réussite ci barke baayam sëñ Fall. amiin yaa rabbal di siyaar tamit sama wasila sama sëriñ sëñ maam as Ndiaye Daba. moom laa àndal ñëw fii. waaw est-ce ah. di ko ñaanal moom it yàlla dafa ko jàmm dafa ko tawféex. Hmm, am ndax su ma ñaanalee rek boppam la ñaanal. <laughs> la. ndax yàlla dogal na ñu bokk la ñu bokk waaye na tamit ñu ma nekk taalibe. est-ce que. kon su ma ñaanalee rek boppam la ñaan. yow ñu ngi lay siyaar baax di la ñaanal suñu borom dafa la jàmm. amiin yaa rabbal aalamiin dafa ndax nit bu yaatu rek. waaw xolam yaatu rek. dama defal ñëpp. yàlla defal na la loolu. alhamdulilah yàlla yàlla defal la tawféex defal la mucc. amiin di siyaar bu baax sama maam soxna Ndeye Ndiaye daa baax. waaw kay di ko ñaanal mu yàgg fi. yàlla wéral ko guddal fanam. amiin di ziar baax sëñ Abdou Khadir Ndiaye xalifa Cheikh Mawone Ndiaye daa bàyyi. la moom yàlla guddal fanam te wéral ko. di woo tamit mbo mbo mboolem sama wëllëre jàngkat yi. waaw tàggkat yonente bi. waaw est-ce leen woo ci bisu sëñ Abdou bi. waaw le 17 février incha sa kër si. waaw sëñ Taaw Mbaye ak sëñ Talla Pen ak Cheikh Mbaye képp kuy tàggkat bi rek wala ngay zikru laa rek. waaw maa la ci woo. waaw incha di saako sa teewaay incha allah si kàttan yàlla. barakallah jërëjëf euh, kon ñoo ngi sant leen bu baax a baax di leen gërëm di leen ñaanal gudd fan ak wér dégg nga di ñaan sëñ Abdou yàlla yàggal ko fi wéral ko kàttanal ko di ñaanal tamit sama sët boobu muy taaw bay ndax moom it daa waroon ñëw démb ci bis waaye yàlla daal def daf génn taaw bay ku bëgg démb waa kër sëñ Mor Ndiaye daa bàyyi la taxawaayam démb am te lu mu am rek lool la ñoom la moom it daa génn waaye yàlla na ko yàlla indi si jàmm ak salaam nuy siyaare bu baax Euh, way juróom bu jigéenu soxna Xadi Cuun dégg nga maam soxna Ngóone si waaye noonu la ñu siyaare dégg nga maam soxna Faat Cuun dégg nga maam ak Asi Cuun dégg nga bàyyiwunu kenn ci waa njaboot gi ñoom ñëpp dégg nga maam ak yaayu jàmbur mi nga xam ne mooy xaritam dégg nga noo leen di siyaare ñoom ñëpp dégg nga njaboot yëpp kenn ci ñoom waaw muy góor di jigéen di mag di ndaw dégg nga dem nañu dellusiwaat nañ ci jàmm ñaanal leen ñoom ñëpp dégg ki nga xam ne moom mooy euh, Pape Badara ñoo ngi koy siyaare bu baax ak ak Mouhamed di siyaare di maam mboolem waa kër ga ak soxnaam soxna na fi ñoom ñëpp dégg nga yàlla na yàlla dooli jàmm kon su ko defee rek xam naa ne waxtu wi li ci des damaa bëgg rek nga dóoral ma ko rek dégg nga la la la la la góor la ilaha illallah uhuh. Cheikh Ibrahima la ilaha illallah la ilaha illa la du la reer sàpp saadu faal taxawe may si biigee kumba faal naat bi yaa moom kaw saare la ilaha شيخ إبراهيم لا إله إلا لا لا إله إلا لا يفعل فعل لا إله إلا لا لا إله إلا لا يفعل وأحب لا إله إلا لا ربنا laa ilaaha illallaah faal laa ilaaha illallaah isi jeey faal di benda la suka ngoone jeey faal damel fu joogun damel de calaw damel ey yaaya faal الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد قديم من تماد محمد يقول عبد الله وهو أحمد بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو عمد قديم من سماد محمد يقول عبد الله وهو